Godfather jërëjëf jërëjëf tey si bëccëg wax nga fi lu am solo dama ko bëggoon a bind sax nga xam ne ah, su ma firee naa ci mën a def audio comme nit ku yàq ci département bii ñu jëlee la ci département bi yóbbu la feneen Godfather loolu ay caaxaan la maa ko wax man Malick Mbaye man loolu caaxaan la Godfather loolu caaxaan weesuwu ko yow nit ki li da nga génne ko fii ak yàq su dee naa yëguloon ne dafa yàq waaye nga xam ne nga siiwal ñu siiwal ne kii dafa yàq nga jël ko yóbbu ko feneen li tegu ko transfert moo lan su dee dañ ko dañu wax ne dafa yàq te yàqul bul ko transfert su dee ne nag dafa yàq nga war ko jëlee fi yóbbu ko feneen pour lan loolu moo ay caaxaan la parce que dégg naa ci bëccëg nga wax lu mel noonu caaxaan weesu loolu gis nga fii ah any company fii dañ la eh, ñaari affaire dañ la koy wax liñ mën a maslaha ñaar bokku ci xeex ak sàcc xeex ak sàcc parce que ñu ne sàcc xamuloo boromam kañ la ko door te boo ko fi bàyyee xamuñ la ndax dina ko mos a bàyyi dàq rek dañ lay wax ne you will never work for this company again in the rest of your life doo fi mos a liggéeyati you will never work for this again period waaye nga ñëw fii nga lekk ci département nga sàcc wala nga ñu siiwal ne sàcc nga dàquñ la sospenuñ la wala jël yóbbu la beneen département kañ gaa bàyyi sàcc gi Godfather Godfather ñun dëkk boobu demagul de billahi barke njool màkka demagul maa ko wax dëkk boobu demagul de mënumaa understand nga xam ne ñu ñu siiwale ne diw sàcc la li ñooy jëkk dañ lay suspend gum lijjanti ko buy jël wan yee sax yaa def pexe ba ñu ne sàcc nga wan yee da ko jël nga toog suñ paree gis ne doo sàcc bu boobaa ñu def ko ñu seet leneen lu ñu def waaye jël la fii bi ko coow li wër na fi jël la yóbbu la feneen ñu ngi laa woon bunti bunti sàcc yi naka la bare parce que fii sàcc nga fi mun naa am fële da ngaa dem ñu wanaan la beneen buntu waaw dafa mel ne janax si biir néeg rek ay pax yu bari pax mu ko neex jaar rek loolu baaxul yooyu moom d'accord ba ci Godfather loolu moom ayoo ci ànd man daal kuñ xas ne sàcc nga sàcc nga jeexal nga fi jël fii yóbbu fii jël fii yóbbu fii kii baaxul fii nga ko feneen mu bon fii bon feneen rek baaxul waaw waaye nag li ñuy wax naan waaw 2026 révolution révolution bii ñëw 2026 sax mën na la bett waaw parce que Godfather fees yi ma gis fees yu màgget yi ma gis si benn tanewu ci billaahi ñi ñë baraw leen tane waaw waaw parce que xam nga Godfather li fi li fi foni wax nga ko ci bëccëg alal yaay jàmme ji nga ne baro waxu si dara waaye ñi àndoon na baro ñu ngi oppose baro tey te nekkoon na si nguur gi ba tey kenn waxu si dara di alal yaay jame baro waxut de waaye ñi bokkoon na moom ci 2016 nguur gi ba tey ñoom itam luñ mere mere baro foofu duñ ko tudd di nañ ko tudd ah ay Godfather yu itam su dee baro tuddul ko te ñoom fu mu ne nii yàquwante nañoo baro xam nañ secret yi nañ ko wax wala lu tax ko tudd <laughs> ah Godfather am na lu xew de waxa rek am na lu xew. léegi alal yaay jame ñaar fukki at ak ñaari at yaay jame liggéey ne ko ñu ne yaay jame amu fi dara ba tey amul benn opposition bu ñu may joxoñ baro ne ko xaalis yi xaalis yaay jame alal anam kenn du campagne ba tudd ko seen campagne yi tooxi yoone bu nekk lu nekk dañ ko wax baro waaye kenn du tudd na alal yaay jame kenn ko tudd Goor Fada li ñu naqari dafa bari liñ ñu xam dafa bari gis ngeen nit ñi li leen naqari dañ xam ko ne tekk mooy dañ xam li leen naqari ne tekk mooy ñun Yaya Jammeh daf fi nekk ñaar fukki at ñaari at Gambie dal di ñëw ñu ne Yaya Jammeh xaalisam di saafur ko te ñi amuloon moto yëpp am nañ moto ñi amuloon kër yëpp am nañ moto am nañ kër fu ñu ko jëlee Yaya Jammeh nekk président ñaar fukki at ñaari at ok ak ñi mere baro ni yëpp waaw baro lii dàq na waaye léegi Gambien si ñun waa Gambien ñun lu ñu yitteel mooy alal Yaya Jammeh ji nga xam ne ni ñaar fukki at ñaari at liggéey ne ko ñu ne moomul ko léegi ñi nga xam ne ñoo liggéey ak baro léegi suñ bëggee ñun ñu gëm leen nañ ñu wax ne alal yaay jame ji fii la jaar waaye ke baro danañ ko contre guddi contre ko bëccëg waaye kenn du wax ne baro opposition yi yëpp laa wax ne doo si dégg kenn ku ci joxañ baro baro ne ko wax alal yaay jame ji a leer ah, ko wax gon faara foofu yu itam waxa rek alal ji ñaar fukki at ñaari at comme ni nga ko waxee ci bëccëg bi or computer yaag eh, eh, eh, big screen yaag alal yaag nag yaag moto yaag xama yaag tracteur yaag lépp yaag tracteur yaag trok yaag tracteur yaag moto yaag kër yaag laan yaag fuur yaag everything ba tey amul benn opposition bu ñëwee taxaw ne ko président Baro alal yaay jàmm ji war nga cee wax dara ba tey benn opposition du ko wax Baro waxut ko waaye ana opposition lu tax duñ ko wax dee ne bëgg nañ waa Gambien di gëm lañ waa APR ñi ànd soppi yaay jàmm yi gëm lañ nañ ne ma alal yaay day president baro war warga ci def dara warga ci wax dara feñal ko way ko faada kenn koy tuddu amul benn opposition bu mo a joxoñ bara ne ko alal yaay jaɓe ji wax ci go faada ñu liñu li ñu naqari dafa bari gis nga ñu li ñu naqari dafa bari suñ toge ba 2026 sax billahi wallahi te kep ko xamne man nga ñew fi ñun man man man maling bay man maling bay. okay ma ma jox la exemple tay képp ko xam ne génn nga ngay opposition tey nga ñëw wax ne alal yaay jàmme ci xamoo si dara sa yoon nekku ci nga won nguur gi ne dafa dafa jot pour ngeen génn ngeen wane alal yaay jàmme fal su ma la supportul barke Serigne Babacar ci all political party naa le bàyyi keroog and and ak yow barke Serigne Babacar ci keroog bu benn opposition ñëwee ne alal yaay jàmme ji ne ko président Baro yaa jiite réew mi yaa jàmme dafa jiitoo réew mi ñaar fukki at ñaari at alalam ji war nañoo xam fi mu jaar nañ ko génne leeral ko gambien ci na feeñ fu jaar ñu ko jënd nañ wax naka lañ ko jëndee ak naka lañ ko jaay ñu ko jaay ak naka lañ ko jaayee ak noonu ndax noonu la war a demee war a war a ko demee anybody ku ko def barke Serigne Babacar ci keroog parti ma nekkoon ci ci Gambia bàyyi naa ko keroog ma ànd ba ànd yow waaw loolu tam man maa la ko promise keroog boo déggee any Gambien bu dal di ñëw ay men ñi nga xam ne ñoo àndoon Baro ci nguuri 2016 gi laa bëgg a wax de waxuma ko est-ce xam ne liggéey ko su nguur de ene ku xam ne nekkoon nga ci coalition 2016 bi nguur gi saase nga am ci place nga ànd ak Baro tey nga taxaw ne Baro waa war na fu nga génnoo taxaw ne Baro alal yaay jame yi ko feeñal dafa war a feeñ keroog ma soppal la man Malick Mbaye keroog ma di kool waa APRC ne leen bàyyi naa APRC tey diw laay maa la ko wax man Malick Mbaye Godfather jërëjëf jërëjëf waaw comme li ma la wax rek gis nga man daal ku ma bëgg a nax léegi ci politique Gambie dafa am noo naxee dinañ la seet ba jeexal tàkk gis na defuloo dara gis nga jot na tey ku mel ni Diomaye Faye ak Ousmane Sonko Gambien ci tànn lu mel noonu ku xam ne da nga liggéey ci nguur waxuñu ku xam ne liggéey ci nguur sax ñun dañ soxla ku xam ne liggéey nga ba retraité wala liggéey nga ba am expérience nga taxaw setal sa bop wécc amul kenn kula mëna joxañ ne yow mi yaa fi def nagam Ousmane Sonko limay wax ni bari na ko toog fi ne waaw du deug du deug waaye duñ wax lu Ousmane Sonko jël kenn mëna ko tudd duñ wax lu jamaay jël kenn mëna ko tudd eni Gambien nak bu ñew suba taxaw wax lu mel ni ñi nga am ñor gi 2016 bi nguur gi sansé baro jox na la place wala liggéey nga si nguuri baro wala liggéey nga si any institution wala liggéey nga any fu ñuy fayé taxi ñu ñew xet la ba seet wecc gis na yow mi lo dara sa dara depp xet na man maling Mbaye boo ma bo ma xoolee na ma dama bëgg fam Fatima anda yow parce que man dama bëgg ni ku xet nga naw malik Mbaye ma ngi ni nga ne lekkuloo deureum nguur may la dedet nga naw malik Mbaye man tam lekkuma may la ah nga ne ma ligena, na liggéey na liggéey na fu nek liggéey wala def na nangam nangam ba tey laaluma dërëm boo ma ooyee mo wuy la waye nak Godfather man dafa am lu xam dama gëm ne dama gis 2021 ni election bi tangé baro luñ ko waxul moy baro dëmm nga dëmm nga sa yakarna wax nañ ko ko comme lañ daan wax yaay jamme rek gannaaw yaay jamme biir na wax nañ ko yaay jamme gannaaw baro birna na wax nañ ko baro ok way musuma dégg ku lok baro ci meeting openly nga ne man nak gambien la presiden bëgg président baro bi nguur gi 26 na yaay jamme ne ko na fi président ñaar fu at ñaari at alalam ji Gambien ci dañ deserve pour xam alal ji fan la bare suñ ko jaayee war nañoo xam ñaata lañ ko jaayee ñi ko jënd dañoo war a xam parce que sa suñ ko dañ ko jënd te alal juy jaay la dañ ko jënd si njëggu réew njëggu lew am nga si receipt am ga sa document yi wane na kayit yi alal ji da nga ko jënd any politicien bu taxaw si meeting. 2021 lu muy métti métti métti dégg nga benn politicien benn opposition ak lu ñuy bañ baro yëpp dinañ tuumal baro baro mënu lii mu ngee nelaw mu ngee xàndoor baro déggul angale baro demul ci tool yi baro motom bi dafa paan ci fooñi gi baro motom bi dafa paan ci saalum gi baro waaw nangam dégguloon angale baro école bi mu demoon kayit yi nii la demee yëpp wax ngeen ko baro waaye ba tey amul kenn ku ñëw nañu alal yaay jàmme ji gambien la comme ñëpp te jiite na réew mi dañ war a xam alalam ji ngeen a ko jël ñaata la naka lañ ko jaayee dañ ko war a xam ñaata lañ ko jaaye ñu ne yaay jàmme day alali Gambie ji jëloon na ci nangam ñu ne ok biñ ko jaayee ñu ne jaay nañ ko jaay nañ ko dañ war a xam naka la demee fan lañ ko jaayee ak naka lañ ko jaayee dañ ko di saa pour xam te buñ ko doon jaay dañ ko waroon a advertise ñëpp yëpp ko ba am intérêt nga am intérêt keneen am intérêt ku dem ku bëgg dafay nekk ëppoon ku mën a fay-fay waaye suma dégg benn opposition bu taxaw ne alal yaaya jàmme ji baro ñu naa nga ne alal yaaya jàmme dañ ci sa pour xam fan la jaar benn opposition ala ñoo bañ baro yëpp baro dëmm la baro baro jàngut angale baro déggut angale baro baro moto bi dafa pan si yoonu fooñi wi baro yoonu yoonu man sa konk yu baaxut baro ki ki um, ki man sa man sa fu dëkk manko manko da um, uh, kër gam fa tabax comme palais yëpp wax nañ ko baro waaye alal yaaya jàmme ji baro ji ngeen réew boo ko bëggee jiite dafa am nooy mel nga ñew ne baro man dama sét wécc té bëgg na gambien ci xam yaay jamm tam doomi gambie la dafa liggéey réew mi ak luñ ko méré méré méré alalam ji war nañu xam fu mu jaar benn politicien benn opposition waxut ko so man ma wara a taxaw déglu opposition yooyu ñu taxaw di bari wax suma kanam ma déglu leen pour lan nañ ma wax man li ma bëgg a dégg mooy man suñ bëggee am suma vote mooy maling bay, man li ma wax dafa yomb nañ ma wax ne alal yaay jamm ji président Baro ya jiite réew mi war na war nga woon gàmmeen si na leen alal yaay jàmm ji dafa fan la fare dañ war a xam ne ko benn opposition génn rek wax loolu ngeen seet keroog waa EPS ñàkk ma de keroog keroog ngeen di xam ne ma maa bari bëri fu keroog laay toog rek ne waa EPS doy na sëkk dem naa ànd ak diw lii laa bëggoon a dégg. waaye coow li yëpp dinañ ko wax baro lu nekk dañ ko wax baro déggut angale baro demul Mansakunda euh, euh, kii high school demul euh, Gambia high school demul Amity high school demul collège demul university waaye baro moto mi dafa pan baro moto mi dafa paan waaye baro daf naan jaay kër baro déggut angale waaye baro demul français déggul français lu nekk wax nañ ko baro waaye li Gambien ci bëgg a dégg mooy alal yi former président bi anam léegi su dee borom daf ne tekk nangu cee wax yéen ñi nga xam ne yéen a ko oppose su ngeen bëggee gàmbeen si dégg leen xam ne yéen da ngeen jub da ngeen bëgg yëre réew mi yemale nit ñi ne leen eh baro war a xam dara keroog su ngeen ko waxee keroog nga bi lakkee nga xam ne waa APR ñoo bëri doole te ñoo bëgg yaay jàmme waaye yéen ngeen ne baro du ko wax te yéen lu ngeen ko wax kon yéen baro leen tane waaw man de man su ma nekkoon opposition am suma political party te man man man man ma bëgg gàmbeen déglu ma te joxon nañ la plan 2016 dama ñu ko baro 2016 ma yow ñoo ànd xeex yaay jame ya ba jeex dama ne alal yaay jame dina genn nga dem ba foo taxaw wax ko fa dem sere ko ndaw ko fa dem salu wax ko billahi dina bari ñu xamne ne dinañ bàyyi seen politique ak parti topp la parce que dañu xamne yow justice ngay xexal way kenn du ko tuddu ngeen na baro du ko tuddu way yéen tam du ngeen koy tuddu de kenn du koy tuddu man <laughs> man ma topp la yomb na de waaye daal fu mu ne la ku ci bëgg ma topp la da ngay mel ni Ousmane Sonko Diomaye Faye da ngay liggéey fukki at ak fukki at ak lu ko weesu si nguur taxaw seet wecc